jikko yu rafet ji ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu moomu toon dëgg xam sa bopp. Diabou. Diabou. oui. voilà zone. Eh. voilà c'est pour l'électricité. le partage d'électricité d'accord. maanaam. oui. Ah, bi dégg Fatma. naam. Fatma. naam. am. courant dégg nga dégg nga fay dégg nga ah. papa na da ngeen bëgg a utiliser courant bi gratuitement loolu mënu nekk gisoon ko fen jibi jibi a ah, jibi doo ah. am li ngay bañ a dégg di nga ko dégg de courant bi ku ko utiliser fay ko bii pour sa néeg la bii pour néegu soo fi sa Bana, nilawanga ngabanya vale. Yanzita nani? Hey, Takan. Oh. Tell me. Kuna, job ngen torap. Yada yan yakalo ni may dam ni nen. Chok na ko bayda bo. Ala kay. la ma yow lii lii lii lii lii lépp lii man maa ko conseillé maag subi ah yow jibi sa néeg ak néegu sofi sa doom yow sa biir néeg bi lu fa nekk ventilo vidéo yaa ngi dégg ba tàngaay lay tàgg. ma ni sama yoon nekku ci. ñaareel ba mooy soo fi sa doom bi am na appareil yooyu ngi ñuy def si bopp. Fabrice lii du lekk courant. du lekk courant lii du ko fay de. la ma ko fayul ah. yow sax tigi nga. yow kër gi yaa ci ëpp ay matériel foofu ba pare facture bi su ñëwee nga jox ñu lu gën a bari fay lu tuuti. Ah. gis nga nag lii man duma ko fay. Ah. ah. gis nga man du ma nekk ci kër gi. yor benn làmp kese. ñu may jox ay facture deux mille cinq cent ki ay six mille francs du ma ko def loolu laa dul def. yow man amaa loo war a wax. loolu laa yow man war ngaa wax yow. pourquoi du ma wax oui maman. moi je vais parler avec toi hein. moi dans cette maison là. je n'ai que mon étoffo là pour écouter la musique là. Hein? Ah. la fois passée j'ai donné vingt cinq mille francs. Ouais. et aujourd'hui tu viens me dire trente mille francs là. moi je vais rien payer hein. Ah bon. lu fee demoo trop yow ah, ah, ah, ah. léegi sax jeex na. waaye boo leen fayul ma dagg ma dagg seen. kubéer léegi kubéer ñàkk fayda boobu xam. bilaa walaay taalaay si mi nangi maa joone amaaya jëf. yow amaaya bilaa walaay yow amaaya. dinaa dugg ma dagg seen fii di nekk di leen budil. jàpp yow attends jàpp toi tu vas quitter le Sénégal. yow yaa moom Sénégal. muy 200. waa waaw. Ah, maa ngi fi. waaw laaga. maa ngi fi rek. lama noo doon. lama waa naa nga def. dinaa nga jàpp. kañ nga jógee Guinée. waaw yaa ngi ko mën a jógee. ñëpp a ngi ci jaam alhamdulilah lama mi ci biir. salaamaaleykum. salaam. Ndiaye ma. loo bëgg. karab fukki dërëm. ganda ko min lama eh? ah tanti naam tanaa la naa de galle na wadi jantu kay eh ñëw eh, eh, nga ñibbisi nga kan nga jóge labe ko hanki mi wi labe ah asil asil asil kay fi sibi asil ko di ndon ah ka bana nalaga jan tan eh. an koto boubacar noon lama hmm. ko kawraɓe ma ɓen emmini lange ma ah. hmm. par ce que kamɓe fami on hmm. ɓe waɗi réunion andi ɓiɗɗo kaw ma wiyeto ɗo wuuri bela on wuuri bela eyi eh, wuuri eyi eh, wuuri bela legi hana maggana de eyi joni noon janɗi ah, janɗi joni noon ko kanko ɓe okkuma ah? kanko ɓe okkuma amin eyi an ɓe okki wuuri musique debbo ah donc euh, man déggatuma sax lan laa war ah yow ñoom bala ñu may may jabar duñ ma laaj ah ñu woo ma téléphone ni ma yow dañ la bugg may jabar si ban situation laa nekk ma expliqué waaye dañuy xëy rek okra oh, oh, oh, nii nii nii nii nii nii nii lama naa apay ko hmm. yow nag yow da nga dem ba génn xet man looloo ma jaaxal di ba nga ñëwee senegal fii danga génn xet pël sax dootoo ko làq yow say nijaay dinañ dinañ la may jabar ngay ne pour ñu ñu ñu wala téléphone wax la ah yow nag ngi bëgg a ëppal. waaw ñoom ëppaluñu eh ma a ëppal parce que ñoom ma may ma magum jëmm laa yaa ngi dégg yow naa sama jabar maa ngi ci sama jàmm ah yow mii ba nga demee foofu ñu wax la mënoo leen expliquer. mais xam yépp yëpp yow da man maa leen di expliquer ni am nga jabar ah waaw xam nañ ko sax nga wax ne mënu ma ah li ganda nii yow lépp yow la jërëjëf waaw ah, yow bi bi ma ñëwee sa bu bu doon sama sago du la gis ndax ba ma la gisee si malheur laa nekk potos de giñ nga nga baal ma naa dégg nga a jaaraama ah, saa yoo fi musiba nga may wax a jaaraama kay ay min noon ko welay noo lan hari ɓe ngu ma mi faala ɓe o tawee yow tere ndeng man boobu la bëggoon. Hmm. sa jabar toog fii. Hmm. fekk jotaay bi. Eh, dama jabar ba. waaw marraine sénégalaise bi. yow lu sa yoon. yow wax nga sa wax. yabal nañ la. jaaraama. jeex na. waaw jërëjëf. waaw. ma nuyu ma waa kër gi. yow na war ngaa trouver solution pour am sa jëkkër bopp. waaw léegi nag xamal la ko. pour kenn na di wax moom ma ne. sa bopp ba gën ñu wax la ki nga doon oh africain et fier de Bamako Singapour Angata sama gaañ yaa ngi doomu Afrika mbënd kaami yàgg yàgg yàgg dina ñaan you born. But that's got no you.